mawlaaya salli dixième édition prophète Mohammed Day in America jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg la voix des sans voix wal fajri di leen di nuyu bu baax waaye tamit di leen ziar ci aljuma ji ñu ñëwaat ak yéen ci seen rubrique bii di royuwaay royuwaay tey ñu ci waxtaanee jëmm ju sell ji di yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy ànd ak ki nga xam ne mooy imaam Mouhamadou Mountakha Sakho nekk fële ci États-Unis imaam maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet yi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa man maa ngi lay fay nuyu nuyu ñi ñuy seetaan fi mashariqi l ardi wa magharibiha di ñaan sama borom defaral suñu zaahir wala ñu defaral suñu baatin jërëjëf incha allah di ko jaajëfal bu baax a baax moom imaam maa ngi koy wax sànq mi ngi féetee fële ca États-Unis ba tax na tey waaye ñuy waxtaanee jëmm ju sell ji waaye tamit jëmm ji nga xam ne moom la ñu war a roy mooy Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yéen waa États-Unis ngeen war a amal dixième édition journée du prophète Mouhamed ana lan moo sabab boobu journée. waaw xaaj eh, Omar xam nga sama borom tabaraka wa taala moo ñu wax ci alquran qul bi fadlillahi wa bi raxmatihi fa bi dalika falyafraxu nee na ngëneelu yàlla ak yërmandeem rekk jara bégee mu mel ni danañ laaj lanay ngëneelam lanay ba mbaa kan mooy ngëneelam kan mooy yërmandeem mu wax ñu suratul anbiyaai wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina yow yonantu yebaluma la lu dul ngay yërmande ñeel mbindeefi comme yonantu sallallahu alayhi wa sallam mooy yërmande yàlla te yàlla nee na bu ñuy célébrer bu ñuy bég nañu bégee yërmandeem nee na lépp di collecté moo xam pour àdduna la moo xam pour àllaaxira la bégee yërmandeem ji ak ngëneelam jee ko ëpp doole fa bi dalika falyafraxu huwa xayru mimma yajmaun sama borom tabaraka wa taala yërmandeem jooju nag mi ngi ko yebaloon ci àdduna ci zaahir bés bii nga xam ne mooy ñaar fukk fan ci weeru avril ren mu war a tombeeg samedi bii samedi suba bi le 20 avril cinq cent wala cinq cent soixante onze ci la yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam gane woon àdduna xam nga ne kon mooy bés bi gën a rëy ci Amérique waaye mooy ndax ci la yàlla yebalee yërmande boppam ji mu ñëw ngir defar jaam ñi yërmande jooju nga xam ne moom sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci la yàlla yërëmee ku mu bind ndax nee na innama ana rahmatum muhda man yërmande la yërmande yàlla laa jum may jaam ñi sam kado laa pour yéen muhda moo tax wax maam aadama wama wa walaw wala falaw laa muhammadun maa xalaqtuka di xadis yi ñëwee ci mustadrakul xaakim su dul woon ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ma la bind ulamaawul xaqiqa yëpp xam nañ ne ci daraja yonentu sallallahu alayhi la yàlla bindee mooy nicmatul ijaad yi waaye ci daraja yonentu it la yàlla di tëbbee maanaam dund gi ñuy dund barkeema waaye tëbb gi ñuy tëbbu it ba dund gi neex ba dund gi continuer ak lu moo ci biir dund gi ci wàllu wërsëg moo xam wërsëgu xam-xam la moo xam wërsëgu leer la moo xam wërsëgu màdd la yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad bu fekkee ne yàlla daf ko yebal ci yonant yi mu nekk seen yonant bu fekkee yàlla daf ko jox moom muy joxe ndax nee na man maay xoosim yàlla ay joxe ndax xam ne yonantu yi sax ci yonantam gi lañ doyee yonant ndax moom mooy alxaqiqa xaqiqatu nubuwati moo ko am ci gàttal boo doon wax danga naan yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu dul yàllaam gi jox na ko suñ benn sëriñ bim ñuy jàngal yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak euh, xalifaam ba Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne xamal ne daal lu dul yàlla la mën nañ ko koo waxal yàlla may na ko li mu am yëpp ba mu des yàllaam gi mu ne yaa yonent bi may na Cheikh Tidiane yi li am yëpp ba mu des nubuwatoom gi loolu tax imaam Buusiri ne ñu daama daatu nasara fi nabiyihim waxkum bi ma chita madxan fiihi waxtakimi wansub ila datihi ma chita min sharafin wansub ila qadrihi ma chita min awami lu rut li nasaraan yi di wooteel yonent yàlla Isa rek jaadu na ñu jooteel ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy bul wax ne yàlla la ndax yàlla kenn la bul ne doomu yàlla ndax yàlla amul doom waaye may yàlla yëpp ci loxom bi la ko dajale moo tax yi képp ku ci dem ba say noon am fu ñu bëgg a jaar yow ci barkem la yàllay jaaree ba musal la moom la boroom xam-xami siire yi di bi yàlla di bind mam aadama ci barkem la ko bindee bi muy def ci moom la tax malaaka yi di ko sujootal non seulement barkeem la waaye leer ga ne ci moom la malaaka yi di sujootal yàlla ngir apprécier ak ngir admirer leer googu di leeru yonent yàlla muhammad gi sallallahu alayhi leer googu it nag moo newoon ci maam aadama ba yàlla baal ko ci barkeemam waaye moo tamit ci maam nuux ba yàlla bi muy alak aw nitam mu musal ko ca tuufaan moom ak ña gëm moo tax dagaal ga suuxut waaye leer googu newoon ci yonent yàlla ibrahima nekk ci yonent yàlla ismaila alayhi salaam moo tax ibrahima lakkut ca safara sa waaye moo tax paaka ba daggul puutu maam ismaila alayhi salaam leer googu ci la yàlla musale képp ku mu musal ci way xejjam moo xam Moussa ci barkem la ko yontu la ko yàlla moo xam Isa moo xam moo xam moo xam bu la neexee daal nga ne lépp lu yàlla amal barkeema yàlla nag dafa amal yonentu sallallahu alayhi wasallam ngir moom amal lépp lu dul yonentu bi sallallahu ngir yonentu bi Amérique ak fu dul Amérique leer googu nag nga xam ne mi ngi juddu woon jamono yi ñuy toll muy weeru avril juddu woon bi di le vingt xawma ku ko soxla wut waaye Amérique ñoom soxla nañ leer ndax fi gëna a lëndëm ci àdduna mooy amerika looloo tax Islamic Cultural Foundation of America ak jullit yi ci biir Amérique ci juróom fukki état yëpp bu waxtu wi jotee ñoom ñëpp ñu dajee fii ci New York dajee fii ci Staten Island bu ko defee ngir fàttaliku waaye ngir leeral waaye ngir xamle waaye ngir xencu eh, baax baax googu nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad yërmande googu nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad njub googu nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama damay déglu démb benn ah, politicien ci Sénégal muy clash suñu président bu bees bi ci slogan bi ngeen di wax jub jubal ak jubbanti mu ne moom moo moom ma ne waaye yéen ñaar ñëpp kenn moomu ko ci defe naa alquran moo ñu indil jub jubal ak jubbanti te ni koy xamee mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla njëkk a wax mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq mooy jubal c'est-à-dire boo bëggee eh, jub foog nga xam fooy teg sa tànk te jànga koy may kon boo jàngee moo lay gindi nga amul jub waaye ñaareelu révélation bi ko yàlla jox mooy yaa ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila kon jubalal c'est-à-dire jogal guddi nga jaamu def li nga war a def sama digganteeg yow ñetteelu révélation bi mooy yaa ayyuhal muddathiru qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir loolu mooy kon jubbantil ñeneen ñi bi nga jubee jubal jubbantil kon loolu yonentu la ko yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag bu ñuy fàttali ko kooku Seydina Omar dafay jaadu ñu fàttali fàttali bu gaaw ci ay jaar-jaaram ndax rubrique bii di roy waay toujours dañ koy indi pour di fàttaliku ay mag ñu fi jaaroon ñoo xam ne seenu baax ak seenu jub ak seenu euh, yéwén euh, tax na ku nekk war leen xam ngir ñu mën leen roy ndax euh, kilifa soo ko xamut soo xamut na mu meloon soo ko bëgg a toppi topp ga dafay xaw a takk suuf te képp ku ñuy roy nag yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay roy wala waree su laa te képp ku ñuy roy it nag soo ko jegee jege gu war mën naa am da nga gis ci moom lu tax la nga ko fa ko tegoon doo ko fa teg doo ko fa tegati ba mu des yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah xanaa ak ñim cuubal boppam yonentu mooy koo xam ne sëriñ bi noo ko gën a xamee gën ko bëgg noo ko gën a xamee gën ko sopp bari na kilifa gooy gis ci télévision mbaa nga koy liir ci téere yi baa nga koy dégg mu neex la waaye suñ la wanee waañam rek nga xeeb ko suñ la waxee biir këram na mu doon dundee rek nga xeeb ko yonentu nag sallallahu alayhi wasallam mooy koo xam ne boo xamee vie privée nga sopp ko boo xamee vie publique nga sopp ko noo ko gën a xamee noo ko gën a jegee gën koo warmal gën ko sopp fajaruk le 20 avril nag wala ma ne njël ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar judduwul guddi judduwul bëccëg mi ngi judd ci diggante guddi ak bëcc xam nga lu tax yonent dafa maandu sallallahu alayhi wa sallam te bu ñuy wax royuwaay maandu mooy ci jiitu principe yëpp maandu moo ci jiitu moo tax wax ci alquran inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaan ndax bu maandu amee rafetal mën a am wax nañ ne ndey Aminatu jamono ji mu dégg nga indi bi ko bi bi muy indi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy fajaru altine guddig dimanche di jeex fajaru altine di dugg jamono ji ñuy wax saxar wa tibi dhalika saxar ni ko cheikh al bëddi xasaanu tariqa waxee njël mooy jamono bi nga xam ne guddi gaa ngi jeex waaye fajar gi dégg nga dugg gut wala guddi gaa ngi jeex fajar gaa ngi dugg si nee nañu boo feebaroon sax mooy moment bi nga xam ne lu sa feebar métti méti di nga amuk dal jamono boobu ci la yonantu sallallahu alayhi wa sallam juddu mu ngi nekkoon fukki fan ñaar ci weeru rabiul awwal tombeek ñaar fukki fan ci weeru avril lu tax nag léeg-léeg ñaari dat yi di wute ci biir at mi ndax atum jant mi dafa ëppe atum weer mi fukki fan benn atum jant bi 365 jours la moo tax 20 avril bi du changé waaye atum weer bi nag 354 virgule nangam jour la looloo tax buñ ko gàmmooy ci rabiul awal ren mars bu déwénee boo moytuwul ñu gàmm ko février. waaye comme avril bi nag li ma la bëgg a laaj dem waaw. ma ne li ma la bëgg a laaj rek mooy bés boobu nga xam ne da ngeen koy amal di samedi ana lan ngeen ci nam ma def programme bi naka lay demee. waaw programme bi eh, bu ñu xëyee incha allah ñëpp danañ daje danañ jàng alquran alkarim bu ko defee it bëccëg gi dana am yëfi séeréer. toppatoo gan ñi dalal leen e, dégg nga waaye programme bi ak activité yi ngoon gi lay e, tàmbali su ko defee danañ am ay e, waxtaankat yoo xam ne danañ jógee ci barab yu faccantikoo moo xam ñu cosaanoo ci dëkk bi di Amérique mbaa ñu cosaanoo ci yeneeni dëkk te nekk fii bokk na ci ñi nga xam ne at mu jot dañu ci gunge koo xam ne c'est l'un des plus grands philosophes plus grand savant yu ma xam ci histoire euh, moderne muy le professeur euh, Souleymane euh, Bachir ku mel ni docteur Abdoulaye Ndaw bu Michigan ku mel ni imam Hassan al Akbar di suñu mbokk waa dëkk bi waaye di borom xam-xam bu mag bind lu bari moom tamit ku mel ni dégg nga alustaz Abdou Samit Mbay nga xam ne jàngale Alquran ak xamale ko moom mooy ak yeneen i kilifa yoo xam ne ñu ngi fii ci biir euh, New York nekk tamit ci yeneen i gox ci biir Amérique ñooy daje ngir euh, waxtaanee yonentu sallallahu alayhi wa sallam thème bi nga xam ne nag mooy thème ren bi mooy naka la ñuy garder suñu ngëm ci adduna trois troisième millénaire rawatina nag ñu nekk ci biir Amérique gi nga xam ne fi la euh, fi la défi yëpp amee nga xam ne dem nañ ba toll boo xam ne nit ki dafay bañ ñu naan ko il wala ñu naan ko el dañu am ay pronoun yoo xam ne dañ leen créer dégg nga àdduna boo xam ne ni ñu ngi xeex diine di xeex mbaax ku mbaax toll ku diine toll waaye tamit naka la ñuy fexee ba indi ak mandute ak jàmm ca ci biir adduna yëpp rawatina suñu mbokk yële ca Gaza ca Velastri nga xam ne lu jege ñeent fukki junne nit léegi rey nañ leen te àdduna bi yëpp ñu ngi taxaw àdduna bi yëpp ñu ngi noppi mooy bu may wax àdduna bi yëpp mooy the decision makers kilifa yi defuñ ci dara yooyu nga xam ne euh, ñooy yi gën a critique ak ni ñuy def ba yar suñu xale yi fii ni ndax euh, ci journée boobu xale yi nga xam ne ñu ngi jàngee ci ICFA Institute moo xam ñi jàngee fii ci Staten Island ci jumaa ji ak ci institut bi wala ñi nga xam ne ci institut en ligne bi la ñuy jàngee ñoom ñëpp ñoo fiy dajee bu ko defee dinañ def ay démonstra démonstration dinañ jàng alquran dinañ tamit waxtaanee hmm. jubal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. waaye hmm. yi tamit ñi ci gën a nemmeeku dinañ leen jox ay prix dinañ leen jox ay kii non seulement ñi gën a nemmeeku ci ñi gën a ràññeeku laa bëgg a wax ci élèves waaye ñi nga xam ne aussi seenu liggéey ci biir communauté bi dees koo ràññee ba nga xam ne Euh, ku nekk war na ci teg bëtam ñoo ñit danañ leen jagleel ay award of recognition yoo xam ne pour wane ne communauté bi gis na eh, seen liggéey moo xam ñi nga xam ne ni ñu ngi liggéey ñun te bokk ñun diine bokk ñun dëkk wala ñi bokk ak ñun diine te bokk ñun liggéey bi fii wala sax ñi nga xam ne bokk ñoo ñun diine waaye ñoo bokk ñun liggéey communauté bi dégg nga ni nga xamee ne def nañ ko ci weeru koor bi Euh, suñu sénateur bi suñu assemblée euh, man bi ñoo ñëpp ñëw fii euh, jox ñu ñun ay award award yooyu nag ñun communauté bi am na yuñ leen war a del ngir lan daf ci am ñoo xam ne lii sama borom di wax ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi diin fii it bëri na fi ñu fi nekk ñoo xam ne fu ñuy xeexee diine ak di ko néewal doole donte ñoom bokk ñoom ñun diine ñu ngi taxawak ak ñun ànd ceeg ñun te xam ngeen ne lislaam ni yonentu waxee woon sallallahu alayhi wasallam dafa tàmbali jafe waaye noonu lay mujjee nee na dafa tàmbali nekk lu tumuranke mu ne waaye ci mujj jamono yi dafay mujj nekk lu tumuranke mu ne raak fa tuuba texe nag ñeel na lil xuraba tumuranke googu nag nag defe naa ci biir occident la gën a tumuranke mm. waaye ñi ciy jàppale way tumuranke yi ñooy danañ ànd ñun bés bi eh, dégg du doon rek jullit yi waaye autorités yi nekk fii day nga ñooy ànd ak ñun ñëpp ngir euh, fàttaliku yonentu sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu tuddee ko prophète Muhammad Day in mooy bés bi gën a ci Amérique ndax mooy mooy bés bi nga xam ne hmm. gannaaw yonentu moomee bés bés bi ko yàlla jagleel jaam ñi ñu ci daje di ko ci fàttaliku Amérique nag am ci cër bi kon mën naa ne mooy chance Amérique mooy chance su àdduna si daa Omar jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom oustaz Mohamed Sakho mu nekk fële ca états mu nekk bés bu nga xam ne dañ ciy màggal gën di mindeef comme ni ma ko waxee sànq muy Mohamed sallallahu alayhi wa sallam samedi bii ñu jëm mu nekk dixième édition mu mel ni donc euh, sénégalais yi nga xam ne ak mbokki jullit yi nga xam ne ñoo nekk fële ci États-Unis ñoom moom ñi ngi bay seen waar bu baax a baax ci lépp lu nga xam ne dafay saxal diine li leen leen andiloon ci seen émission royuwaay